waaye borom bi moom ab jéggalekat la saa yu nit ki tooñee wëlbatiku waat dëgmalal ko boppam moom jàll jalaaluhu torox lu sippeeku ci kanamam suñ borom nee na ma jéggal ko moo tax mu ne bu leen naagu mukk ba jàpp ne dootu leen baax bu leen naagu mukk ba jàpp ne taq ngeen ba dootuma leen baal ku ko def rek yàqu moo tax seytaane moo koy def nit seytaane mooy gëmloo nit ne ko mënatoo baax mooy gëmloo nit ne ko xeeb nañ la ba noppi lu lu la neex defal mooy gëmloo nit ne ko mm, mooy geeg topp geeyam yow ni ngay mel mel nga ko ba noppi waaye yàlla moom déedéet la wax doomu aadama bi saa yu nekk mën naa baax saa yu nekk mën ngaa gën saa yu nekk mën ngaa gën moo tax dabe weesuwut dabe weesuwut yàlla nee na tëjuma bunt bi ba léegi rek man ngeen a inscrire waaw te ku bindu ma boole la ci bindu mu njëkk ma nga xam ne boo ñot ñotee rek daal di dabe boo ñot ñotee rek daal di dabe waaw suñ boroom ab jéggalekat la ndax xam na ne ñun ñëpp sax ci njub yombuñu waaye suñu matadi googu nga xam ne moom lañu ñu matadi ak noon bu rëy boobu taxaw ci suñ kanam taggalgal ñook xiixaan ñu ay mbir di ñu ko xoy bañ jàdd doon yitteem suba ak ngoon góor góorgóorlu ba mucc ca yittee ku nekk la war a doon yàlla nañu ko yàlla tënkal moom moo ko waxoon ne ko indi inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan seytaane pànk nga lool waa waaba jiiba nga lool bari ngay pexe lool waaye sama jaam ñi am na ci ñoo xam ne doo am ci ñoom wenn lay dangay jéem-jéem bàyyi yal ñu yàlla boole ci jaam ñooñu nga xam ne seytaane day jéem-jéem ba no ba sonn bàyyi ci ñoom waaw mucc ci nag lu jafe la waaye ku ci yàlla musal nga mucc ci yal nañ ci mucc ndax moom ab noon la te yatu noon moom du tuuti ëpp naa xeeb rawatina nag noon bu bari pexe suñ boroom kàttanal ko ba muy dikke ndeyjoor di dikke càmmoñ di dikke kanam di dikke ginnaaw moom seytaane mën a yàq lool léeg-léeg mu sol soppe lool ba nga jàppee ko soppe ndeke yàqal la moo ko tax a jóg nga xam ne bim lay digal bim lay jay bim lay xambu ci ab safaan dangaa jàpp ne lim lay def loo ak li muy def mooy li gën ci yow kii kat ku baax la ndekete yoo ci musiba la la jëmee moo tax bunt yi muy jaar ba di la yàqal yépp teel faa jaar yow ba fatt ko ndax day bokk ci li tax nga mucc waaw bunt siis buntu iñaan buntu mer waaw seytaane jël ni di ko xambu sa kaw rek naan la kii dalaa yépp boo ko boo ko rek lewut yim lay def nii kanam la jëm waaw nga ne ca rek ba mujj yàgg nag mu ëpp yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal moo tax góorgóorlu ci xéewal yi nga xam ne borom bi defal nañu ko ndax lim ñu jox ci ay xéewal nee na mënu leen koo lim yàlla nee lima leen defal ci ay xéewal mënu leen koo lim xamu leen nu mu toll wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha waaw xéewal yi yàlla defal nit ñi xéewal yi ñu yàlla defal buñ ko doon lim xéewal yi mënuñ koo jeexal mukk waaw defal nañu xéewal gu ne moo tax fuñ toll naan ko alhamdulillah waaye alhamdulilah ji ànd ak teg nag ay jéego jéego yu góorlu yoo xam ne dañuy tegu ca yoon wa wa ma bikum min nixmatin fa min allah liñ fi am ci xéewal lépp ci borom bi subhaanahu wa taala la bàyyi ko xéewal yooyu bokk na ci xéewalu fekke weeru koor xéewalu fekke weeru koor ay waay weeru koor ku yàlla dimbali ba nga fekke ko mbokk yi war ngaa mën a am aljanna am nga occasion pire ngir am aljanna waaw ni nga amee occasion ci mbaax nga xam ne am nga occasion bu baax nañ baax nag balaa weer wee jeex nañ tàmbulee évaluer suñ bopp xool fan niñ jot a gun a am lan la def ci ñun ñu nat nag ndax ku ku fekke weeru koor daal war ngaa am aljanna balaa koor gaa jeex balaa koor gaa jeex rek war ngaa jege bunt ba boo ñot ñotee daal di cay dugg ndax jéggalu bàkkaar da cee yomb waaye yi maye tiyaaba ci weeru koor te yëpp rafet da cee yomb te dafa jege lool fii mu ne bu nit wooree ba ngoon jot nga dogal ko kooram rek xoolal tiyaaba jooju ni mu toll kenn xamul nu mu toll nga xam ne am nga tiyaaba ju toll ne kooru waa ji boo dogalee ñetti nit am nga tiyaabay ñetti nit ak sa bos boo dogalee ñeent am nga ko te kat boo muy tuut war ngaa mën a dogal juróomi nit seen koor benn nga invité leen ndogu wala nga yëkkati ci saw ñaq toppatoo leen bañ mën a dogu waaw yëkkati saw ñaq jox leen fi mu ne ki nga yëkkati saw ñaq jox ko ne ko maa la ko jox ndogu te am ci yéene jooju bu ca dogee kooram ak bu ko ca dogut yépp yow nga am ca tiyaaba ju tol ne kooram googu mu woor te du wàññi sa koor gi dara kon profitool wut tiyaaba ndax am na koo xam ne yaakaar nga ne ci bëccëgu weeru koor gi dana ci jàng alxuraan moom jàpp nga ne ci bëccëgu weeru koor gi dana ci sonne luy mayee tiyaaba boole kook ak kooram ak yiwu réy wi mu am ci bis bi nga bëgg caa bokk bunt ba ubbeeku na te du gaaw a tëju ndax boo ko dogalee kooram dong am ca tiyaaba ju toll ne josam te du yàq ci sa jos dara kon bunta ngi noonu buñ ubbi ba afal ko gaawal dugg nag te moytandiku seytaane mi mi lay déey naan la nangam naan la nangam di la découragé foo bëggee jaamu yàlla ci sa poos rek saytaane découragé loola ba nga bàyyi ko su bokkul ma ko waaw saa yoo ñot ñotee ba jàpp ne war ngaa dem rek mu laxasu sa tànk yi rek naan la jëru ko bàyyil ba suba jëru ko bàyyil ba ngoon bàyyil ba weer wi dee bàyyil ba altine ah seytaane moo soof waaw ba mujj rek sens yëpp raw la rek nga toog la ngay mujje naan ba ma ciy toll ba ma ciy toll ndax liñ lay wax tey naan la def ko boo muy tut daan nga ko dégg te booba nga ëppoon jotug man koo def xëy na wala nga ëppoon wérug man koo def wala nga ëppoon manug man koo def waaye la ko tee def nag loolaa jara muslu yal nañ ci yàlla musal moo tax bul xeeb dara luy maye tiyaaba bul xeeb dara luy maye tiyaaba donte ab tàndarma ngay joxe te di ci daw mbugalum sawara joxe ko te xam ne tiyaabay tàndarma ja mën naa dox sa digganteeg sawara diggante bu sori kon nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu suñ kemtalaayal kàttan def yitte ci weer wu tedd wii nañ góorgóorlu def suñ kemtalaayal kàttan dolli yitte dolli yitte ci weer wu tedd wu rëy wii ñu nekk ndax xamuñu ba xam bu weer wi di ñëwaat danañu fekkam déet fa innakum laa tadruuna laallahu laa yudrikkum maratan uxra xamuñu ba xam weeru koor buy ñëwaat danañu fekk kenn ci ñun mënu koo gaaranteel boppam ndax bu weer wi ñëwaat dana la fekkam déet mënoo koo garanti ndax am na ñoo fi bokkanoon nekk ñoom dem nañ te yaa ngi fi te xamoo la leen yóbbu ñoom seenu ñàkk fay fayda taxut te yow itam bu ñëwee di la jëlsi sak am fulla du tax mu bala fi kon bi mu la fekkee nañ ci góor góorlu nañ ci góorgóorlu suñ kemtalaayal kàttan waaw nañ ci góorgóorlu ndax nit daa xamul kañ la fiy jógee mhm. appuye ak dund gi ci loxol borom bi la nekk nekkul ci loxol nit wa ma tadri nafsun maada takdibu xada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamuutu inna allaha alimun xabiir waaw yàlla nee na kenn ci nit ñi xamut lan moo koy dal bu subaa kenn xamut luy xew suba kenn xamu ko mën ngaa xam sa programme waaye programme ba léeg nga am fa ay surprise yu bari yu baree bari yoo xamul woon waaye kenn xamut fan lay faatoo kenn xamut kañ lay faatu kenn xamut fan lay faatoo am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne seeni kër lañuy faatoo am koo xam ne bitim réew lay faatoo ji am koo xam ne dëkk sàngam lay faatoo am koo xam ne ci xur wa lay faatoo am ku faatoo ci kaw lalam am ku faatoo ci barabu liggéeyukaayam am ku faatoo hôpital waaw yàlla nee na kenn xamu ko wa maa tadri sun bi ay ardin tamuutu kenn xamul man réew ngay faatoo ndeysaan nit tukki dem wuti wér pelek di dem tàggoo ñu ñaanal ko sottil kom ndox mu dénkaane di ñibbisi na ci kees di ñibbisi ne ci kees borom bee ko xam ndekete ba muy dem day faatu ji day faatu ji yàlla noppi na waaw kër kër ji nga doon def ngir waaj a tukki yépp da nga doon faatu ji rek kon nag góorgóorlul comme xamoo lan mooy xew ëllëg sa temps bi nga am góorgóorlul ba récolte ci tiyaaba yu bari bul bàyyi mukk temps bi muy muy jàll bul bàyyi mukk temps bi muy jàll te koor nag wala weeru koor day weer yooyu nga xamante ne weer yi profitoo la ndax koor daa am yu muy indaale daa am lu muy indaale wa saw mu junna aha koor day dox diggante jaam bi ak sawara waaw ay pacte la yoo xam ne day sorel eh, aji woor ji digganteem ak sawara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man saama yowman fi sabilillah baada allahu wajaahu anin naari sabina xarifa nee na koo xamante ne woor na benn fan dong waaw ku woor benn bi sa yàlla dong tax suñ borom sorale digganteem ak sawara lu mat juróom-ñaar fukki nawet man nga ko waxee noonu juróom-ñaar fukki at doxub juróom-ñaar fukki at mu soree ko sawara allahu akbar cay wii weer ku woor benn fan nag la wax ci fan yi ngëneel yi muy koori naafila yeeg yooyu kon ki ko woor ci weeru weeru koor nag woor weeru mat sëkk ba weer wi jeex kooku lan la war a xalaat ne moom la ko yàlla dencal ci ay tiyaaba xanaa bari na lool cay koor koor mbokk yi dafa doon loo xam ne day dox diggante nit ki ak bànneex bànneex yi nga xamante ne bari na lexóor yu nit di dugg topp bakkanam moo ko ci dugal ak bànneex koor day ñëw ngir rey bànneexam yooyu wàññi wàññi ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax waxambaane yi toll ci takk soxna naan leen koo xam ne toll na ci takk soxna te mënta takk koo xam ne toll na ci takk soxna te mënta takk xam nga kon am na leneen luy xew mooy xelam dina ci soxna kon nañ ma baal mu ne maa ngi koy dénk muy woor ndax koor da koy fekk ki jàdd tànk jëm ci yu mel noonu kon koor ndeke daa ñëw ngir yar nit ki waaw dafa ñëw ngir yar ñu daf ñuy defaraat bañ am personnalité waaw corps dañuy defaraat bañ am personnalité ñu xëy na cell waaw personnalité boobu waaw duñ fi nekk naan añ bi jot na nañ añi waaw doo fi nekk ci yenn yi nga xamante ne ni day wane matadik doomu aadama waaw yu baree baree bari koor gi dox na sa digganteeg moom telatoo ne ci gaanam place yi di xàqtaay aka wax lu ñor ak lu ñurut yenn message yi dabb yu soof yu ñàkk xorom yooyu bàyyi nga ko koor gi dafa ñëw kon ngir yar ñu yaa maxsara sabab man istataa minkumul baata falyatazawaj fa innahu axadu lil basar wa axsana lil farj wa man lam yastatix fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaa loola yonent bi sallallahu alayhi wa wax koor amut lum yamal ci luy yóbbu nit ki ci ak maandu yóbbu nit ci ak maandu waaw koor moom li muy indil nit ci maandu indil ko ko ci fegu amut genn jaamu yàlla guy indilu toll noonu ci ku dégg koor nag xam philosophie bi xam li koor ëndaale mu di ko dunde noonu <laughs> wa sawmu yudxilul janna min baabi rayaan waaw kii woor ëllëg yow xiyaam am na benn bunt bu ñuy jaar bunt boo xam ne ñun woorkat yi ñoo ciy jaar ma waxe ko noonu ñun woorkat yi yàlla na ko yàlla def waaw bunt benn porte spéciale bu kawe ñëpp di leen xool àdduna bépp di la gis ngay daagu waaw xam nga foofu nag la tiitaru neexe nag seet tët waaw xam naa buñ ma wooyee <laughs> tuwarkal la yal na ko yàlla def te woo leen ñu war a tiitaru nag dugg aljanna jaar ci buntu boobu nga xam ne mooy porte Rayaan noonu la tudd ñu war faa jaar ñu ñi daan woor dong dong dong dong ñoo fay jaar keneen ku dul ñoom doo fa jaar inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayaan yudxilu minhu saaimuun yowma alqiyaama laa yudxilu minhu ahadan xayruhum waaw nga xam ne dañ ñaan ay na saa imuun waaw ana ñi daan woor ana woorkat yi waaw moo tax bu fi nekk di añ de wala ngay tappale wala ngay ànd ak àndandoo yu baaxut dana tax a bañ a woor waaw xale xale defe naa mag ñi sax moom am nañ fulla nag xanaa waaye ndaw ñi toll ci di ndaw ndaw lu nii ànd ak ndaw ñu ñàkk jom dana yóbbu nit ki ci mu ñàkk a woor bu ko defee buñ leen rappelé ñu jóg nag waaw waaxu ñëpp di leen xool xam ne woorkat yaa ngi nii. woorkat yaa ngi nii waxuma nag ñàkk añkat yaa ngi nii wala ñàkk naan yaa ngi nii waaye woor woor bokkut ak grève de faim am na ñoo xam ne même bu dut weeru koor mën nañoo xëy suba ba ngoon jot bañ añ ba wàcc seen kër door a lekkaat seen liggéey sax léeg mu bari ba da nga naan ci suba ba léegi lekkuma wala ci suba ba léegi naanuma loolu garaawut loolu garaawut njàmbaar gi dëgg mooy yeneen yi yeneen yu sew sewaan yi koor àndal waaw léeg-léeg may wax ne damaa ragal koor man na maa bañ xëy lekk bañ xëy naan waaye bu tuddee koor rek mu tàmbulee metti ndax koor cër yi war a woor sa làmmiñ wi war a woor sa bët yi war a woor nga door a yëg nag puwaa bi tegu ci sa kaw ci njàngale mi suñ borom indi ci wàllu koor waaw tax muy répété wu at mu jot benn yoon di la xoolaat ba xam ndax la nga fi jàngoon daaw mi ngi def ci yow ba léegim déet la nga fi defoon daaw yan jeexital lay def ci yow moo tax bu nee ay na saa imun léeg yaakaar na ca bokk ñu ne ko laggal toogi fële mu ne moo ne man weeru koor bu ma saa ñëw daanu ma ndékki daanu ma añ même reer daanu ma ko def ñu ne ko du ci dara yooyu da nga ko doon defandoo rek parce que dafa xewoon senegal waaye li nga doon yendu bureau est-ce que taxut wala da gisu gisul woon ñuy lekk rek moo tax waaye taxut sa làmmiñ yi mës ta woor euh, sa bët yi mës mës ta woor tànk yi mësoo koo téye ci ab safaan yeneen yu sew sawaan ci suuf yëpp ñu juugal la ko ba moo tax euh, am na koy ànd ak nit ñi di woor te kooram gi amu ci lu dul xiif ak mar waaw te amu ci lu dul xiif ak mar dong waaw day woorandoo képp yàlla nañ ci yàlla musal waxoon naa la démb ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne bàyyiwut wax lu bon koor doxul digganteem ak loolu koor doxul digganteem ak muy xool lu bon wala mu di ko dox suñ boroom amul soxla ci ñàkk lekkam ak ñàkk naan moo tax buñ ñee ana ñi daan woor nga ne ñokket yal na fekk nga daan woor waaw yal na fekk bi ngay bàyyi añ bàyyi reer bàyyi eh, bàyyi añ yeneen yi aju ci bëccëg bi yépp na fekk ne nag àndoon na ak yëg-yëg biñ soxla ci koor buñ ñee ana ñi daan julli nga ne ñokket yal na fekk ne julli gi julli la woon aj gi nekkoonuk aj waaye bañoon a doon rek yoo xamante ne kenn xamul noo koy tuddee moo tax buñ ñee ana ñi daan woor ñu jóg ñu rappel leen ñu dugg aljanna ñu jaar ci bunt boobu ñoom ñëpp buñ duggee ba jeex ñu tëj bunt bi waaw buñ ko tëjee jeex na dootuñu ko ubbil kenn allahu akbar ay waay yàlla nañ ci bokk waay moo tax li cay tax a bokk lépp nañ ca góorgóorlu li cay li cay tax a bokk lépp nañ ca góorgóorlu bu baax a baax baax a baax koor gi mbokk yi dafa ñëw kon ngir dimbali ñu dafa ñëw ngir dimbali ñu dafa ñëw ngir lakk suñ bàkkaar yi ñu defoon ci fukki weer ak ñaar yi sa bàkkaar yi nga defoon te yàlla dimbali la ba nga fekkee weeru koor koor ñëw na nekk kafaaratun li dunub ñëw na ngir eh, effacer la sa bàkkaar yi nga xam ne moom nga defoon ndeysaan suñ borom subhaanahu wa da koy yëkkatil nit yëkkatil ko njabootam baalal ko ay bakkaaram ci julli ak koor ak saraxe ñaar yooyu dañoo man loolu lool waxoon naa la démb ne la koor ak alxuraan yow yowmal xiyaam dañuy sol ab robb taxaw di layal aji woor ji taxaw di ko layal allahu akbar moo tax nañ ci góorgóorlu ndeysaan di jàng alxuraan ci weeru koor di saraxe suñu alal ci weeru koor di dimbali ñëw ji doole yi nga xam ne ñoo leen tane ci weeru koor di fonk lool waxtu julli yi te di ci góor góorlu moo tax sax dañoo jëlale farata yi waaye naafile yi ci koor rek bari na lool ndax bëgg nit ki am tàmm geek miin gi ba bu ñu waree mu mën koo continuer waaw ndax bëgg nit ki am tàmm geeg miin gi ba bu ñu waree mu man koo continuer wa sawmu sababun li saada fi dunia wal axira waaw koor euh, sabab la ci nit ki amuk texe texeg àdduna ak texeg alaaxira moo tax dañuy wax ne fa inna saaima lahu farxataan aji woor ji am na ñaari mbégte am na ñaari mbégte mbégteem bi ngoon jotee ba muy dog ni muy kontaane ci tàqalikoo xiif beeg mar wi ak yëg ni am na benn fan ak yëg ne am na lu borom bi tegoon ci loosam góor góorlu na ba taqalikook loolu mbégte mu rëy noonu kenn xamul nu mu toll waaye am na meneen mbégte mu koy xaaraat bu dajeeg boromam subhaanahu wa taala ba yàlla seen ko muy ñëw mu muuñ ko ne ko ñëw nga <laughs> ndeysaan yaa daan woor ndeysaan sonn lool waaw góor lama la santoon de daje woo man waaye gëmoon nga ne bis bii dana ñëw nga dajeeg man moo tax daan nga ci sonn loo man ay aywa jegesil mu kontaan lool ndeysaan mbégte moomu mbégte mu rëy rëy lay doon waaw mbégte mu rëy rëy lay doon moo tax mbokk yi nañ ko gëm nañ gëm ne danañ dajeeg yàlla yu bari nag ku ko sàggane ne dangaa gëmul ne danga dajeek moom waaye ku gëm ne bis dana ñëw nga dajeeg yàlla nga dajeek moom allahu akbar tam xam li nga fi nekkee woon lépp àdduna bépp teew ngay waaxu jëm si ci moom benn nga si gi sa bopp ca kaw ndax bég wala nga yóor bay bëgg a dugg ci suuf si ndax gàcca waaw wala nga yóor bay bëgg a dugg ci suuf si ndax gàcca yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññee nañu lool ci ñu góorgóorlu ci koor ak yiw wi ci nekk nee na borom bi sax nee na ki nga xam ne dafa yendoo koor nga xam ne lekkut naanut xëy na caf ka gimiñam dana soppeeku caf ka gimiñam xet gi dana xaw a soppeeku yàlla ne na xet googu moo gën a neex ci moom min reexil misk waaw xetu parfum ba gën a neex la muy xeeñ xetu ki xëy ñàkk lekk ñaan ñàkk naan ba gimiñam xaw a soppeeku alayhi salaatu wasalaam nee na suñ boroom nee na e, gimiñu waajooju li muy xeeñ moo gën a moo ma gën a saf ci loolu allahu akbar mbokk koor ak ñaan lu am solo la koor ak ñaan ku woor na ñaan waaw nañuy ñaan yàlla bu ñu wooree nañuy ñaan bu ñu dog nañuy ñaan ay waaye nañuy ñaan waay nañ fay télé bi dog ba noppi ñaan bu bu mënta ñàkk boog ñu door caa dellu waaye comme comédien buy lekk muy tuuru ci kawam mu sol caaya ju di lëfër lëfëri di wax ay kuppa ki neew yu tekkiwu dara nga koy seetaan di ngakk ngakki ba ñee dog jot na nga daal di jël sab tàndarma daal di lekk xeli sab kaasu kafe naan jóg daane ay ci julli dóor say ràkk wëlbatiku waat amoo benn yëg-yëg li ngay def da nga koy def ci kaw nii rek waaye dundoo ci dara ëpp naa def ëpp naa def temps yooyu ay temps fort la heure dog temps yu seer la waaw bu mënta ñàkk bu muy jot fayal télé bi wala nga wàññi ko ba mu sës jël sa tàndar ma ni ko nikk téye ko jàkkaaloog sa borom ñaan ko door a dog waaw wax allahuma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna faxfir lana ma xaddamna wa maa axarna di dog nag boo noppee nga jublu penku yëkkati say loxo waaw ñaan borom bi soxla yi bari na lool yaa ngi nii lu ne ku ne nga naan na ma ñaanal dem di seetlu jeeg di gisaane loog di génnee ay sarax ay kuppa ki new lu ne nga dugg ci temps benn temps ngi noonu bu am solo boo xam ne boo góor góorloo dugal ci sa demande suñ borom subxanahu wa taala du ko du ko réciter da koy da koy nangu da koy nangu yàlla xam na ko moo tax waxtu yooyu waxtu yu ñaan la waxtu yu ñaan la wasaimu daawatuhu la turaddu aji woor ba ngoon muy ñaan ak ñaanam kenn du ko delloo suñ borom da koy jël ci saasa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ñii seenu ñaan day àgg. elimaan ju jub aji woor waxtu wi muy dog bu ñaanee suñ borom day dangu ñaan gi ak ku tooñ moo tax tooñ baaxut kuñ tooñ mu yëkkati loxoom ñaan boroom bi day nangu ñaan gi ca saa saasa waaye ki tollu ci koorit ba war a dog waxtu woowu waxtu ñaan la waaw nañuy ñaan yàlla yaa taxoon ma woor wallaay xam na ni gëm nga ko nga jël gëm gi yeesal ko nag sa yonent bi nga yónni mu wax ko rek ba ma xëyee li may bëgg bëgg añ añu ma yu bari bàyyi naa ko ci bëccëg bi ndax bëgg am sa ngërëm yàlla yàlla na nga gërëm yàlla baa kontaan nga ci man waaw ndeysaan bàyyee ko sa bopp boo noppee tànn loo ko man day nangam laa bëgg te xam nga ne bëgg naa ko yàlla bu gënee ci man yàlla nag ma ko defal bu gënut yàlla na ko gënal te defal ma ko jabbutu la jabbutoo jabbutoo jabbutoo jabbutoo jabbutu ba taqalikook sa sago tifli diwoo waaw kay daal di nag <laughs> wala daal dem julli ji wala dem àggale ji ndogu li waaye ku woor ba ngoon daal rikk waay na góorlu di dem di ñaan na góor góorgóorlu di wut tiyaaba bokk na ci tiyaaba jooju ma waxoon tam bokk ci ci gën a rëy mooy dogal ku woor dogal ku woor loolu nag làmb ci poos a koy def bu ci xeeb dara donte benn tàndarma bul ci xeeb donte benn biteelu ndox bul ci xeeb donte da nga yëkkati saw alal jox ko mu dem ndogu ji def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man fatara imaan kaana lahu mislu ajrihi xayra annahu laa yanqus min ajri saa shay nee na koo xamante ne dafa fekk woor ba ngoon mu dogal ko dana am tiyaaba ju toll ne tiyaabay aji woor ji te du wàññi ci kooram dara wàññi ci kooka dara waaye lu toll ne lañ koy fay danañ la ko bindal yow ci sab kayee fay la ko yal nañu ko yàlla boole defal mbokk yi yal yàlla nangul suñu koor yal na yàlla defal ñu njéggalu bàkkaar yal na yàlla defal ñu njégalu bàkkaar yal na yàlla defal ñu man koo topp man koo jaamu na mu bëgg ñu jaamoo ko te am ngërëmul ku koy topp def ñu ñu doon dëgg dëgg jullit yu am personnalité yoo xam ne suñu dund ci kaw suuf day am njariñ defal ñu ñu amuk doylu ci wér defal ñu am doylu ci jëmm defal ñu am doylu ci alal ndax loolu dana tax ñu mën a fegu ba yii fëkkaati ci àdduna yu baree bari duñu fëkk yal nañ ko yàlla boole defal may ñu ñu jeexal koor gi ci jàmm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 Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune Sall en envoyant Ali Imran au 26 Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de pour le coût de Soutenir la Dara parce que chaque geste compte.